mbokki julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu nuyu bi lislaam damay asalaamaaleykum wa rahmatullahi di del siwaat ci fàttali gi ñuy fàttali waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téere bi di riyaadu euh, bunt bi ñu war a tàmbalee tey nag dafay jëm ci teggiini lekk teggiini lekk ak tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci booy lekk ak sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci boo lekkee ba noppi ndax yooyu yëpp xéewal la yoo xam ne dafay bàyyi ko ci sunu borom subhanahu wa taala mooy aw ñam xéewal la gu bàyyi ko ci wërsëg la kon nga di ko jëfandikoo tudd yàlla nga noppi itam sant ca yàlla loolu eh, xéewal la gu mag a mag jële nañ ci Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mas na koo wax ne ko booy lekk na ngay tudd yàlla te ngay lekkee sa loxom ndeyjoor te it ngay lekk ci li nga xam ne moo nekk ci sa kanam euh, Omar mi doomu jiitle bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la woon kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jur waaye yonente bi nag doonul woon baayam nga xam ne doomu jiibleen doomu jiitleem la woon moom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fekk boobu dafa doon lekk xëy na cibb foo xam ne du kanamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko lii na ko booy lekkati del tudd yàlla waaye nga lekk itam sa loxo ndeyjoor te ngay lekk li nga xam ne moo nekk ci sa kanam moo nekk ci sa kanam xadis boobu muttafaqun alayhi la waaye wax nañ ne bu fekkente ne ndab li itam dañ caa teg loo xam ne dafa nekk ci digg ba loo xam ne faaw boo ko soxlaa faaw nga jëli ko loolu wàññiwul dara ba tey jëlee nañ ci Aïcha radiyallahu taala anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi kenn ci yéen bu dee lekk na tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala bu ko fàttee itam na tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala ca mujj ga te mooy na wax bismillahi awwalahu wa axirahu maanaam koo xam ne dafay lekk fàttee wax bismillahi rahmaani rahim bu demee ba fàttaliku ko na wax ne bismillahi awwalahu wa axirahu su ko defee mel na rek ku ko waxoon ca ba muy tàmbali bare jële nañ ci jaabir radiallahu taala anhu mu ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ida daxala rajulu baytahu fa dakara allaha taala maanaam ci gàttal rek koo xam ne dafa dugg këram tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala waaye ba muy jëfandikoo ñam wa mu tudd ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala nee na kooku seytaane dafay wax ñim àndal ne leen a ah, takk leen seeni bagage te xam ne fii moom duñ fi mën a fanaan duñ fi itam mën a amub reer wala añ maanaam képp koo xam ne yaa ngi dugg sa kër wax bismillah booy dugg ba ngay jëfandikoo ñam itam nga wax bismillah saytaane day wax ñam àndaloon ngir bëggoon laa yàqal wala ngir jëfandikoo ca ñam ngay jëfandiku ne leen nañ leen dem fii mënuñu fi amum fanaan fii itam mënuñu fee eh, amub reer nee na xam ne dafa dugg këram nag waaye waxul bismillah ba muy jëfandikoo aw ñamam itam waxul bismillah neen ba waa seytaan day woo mbokkam yëpp ne ak àndandoom ne ñëw leen tey moom am nañu am nañu am nañu reer am nañu itam fu ñu fanaan ndax kii tuddul yàlla kii tuddul yàlla kon tudd yàlla ci saw ñam ak waxtu wooy dugg ci saw kër loolu dafay dàq seytaane ba dee jël nañ ci ku ñuy wax Xudayfa radiallahu taala anhu mu ne masoon nañoo nekk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoom buñ daan nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawuñ ko jiitu mukk ci aw ñam maanaam comme buñ leen daan tegal aw ñam dañuy bàyyi ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali wax bismillah nee na ñoom it ñu door a tàmbali waaye mosuñoo jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mukk ci aw ñam mosuñu ko njëkk a tàmbali ngir war maal ko ngir li yonente bi sallallahu ngir lu suñu bu leen di jiital yonente bi bu leen di jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am bis nag ñu tegal leen aw ñam nee na am benn xale bu jigéen bu daw rek jóge fale ñëw rek bëgg dugal loxoom ci ñam wi te waxul bisimilah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téyee loxoom bi mu loxoom nee na fekk booba seytaane moo moo moo bëggoon a jëfandiku ci ñam wi nee na bi mu téye loxoom am beneen sàmm arab itam boo xam ne jógee na fële ñëw itam moom it bëgg a jëfandikoo bëgg jëfandikoo ci ñam wi bëgg a jëfandikoo ci ñam bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam daal di téye loxoom bi mu téyee loxoom daal di wax ne seytaane de dafa bëgg dafa bëggoon a jëfandiku ci ñam bi moo tax mu jaarale ko ci ñaar ñii te mooy xale bu jigéen bi ak saamub arab bi mel ne ku leen bëmax ñi ñëw rek bëgg a jëfandiku ci ñam bi te waxuñu bismillah daan ne ni ma téye seen ñaari loxo yooyu noonu laa téye itam loxo seytaan nga xam ne ñoom ñett ñëpp seen seeni loxo mi ngi ci sama benn loxo loolu day tegtale kàttanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam dañ ci gis itam mbirum mbirum baatin dinañ ci gis itam mbirum baatin ndax ñam toogaloon ñooñ gisuñu loola xamuñu loola waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na xam ne sey xam moo leen ba max xam na ne itam seytaane moo bëgg a jëfandiku ci ñam bi mu téye leen ba mu leen téye ba noppi nag daal di wax nag ne bismillah daal di tàmbali ñooñu itam doola tàmbali kon loolu itam gis nañ ne ñàkk tudd yàlla ci saw ñam dafay waral nga ànd ak seytaane di jëfandikoo ñam wi ba tey jël nañu ko ñuy wax umayya umayya tam ni maxshi yi asahaabi yi radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa masoona toog fekk bi mu toogee am na benn waay bu dend ak moom doon lekk waaye bi muy lekk nag moom waxul bismillah ba demee nag ba nga xam ne ñam wa benn ci bu rek moo ca des mu fàtte ne moom ba muy wax ba muy tàmbalee lekk waxul bismillah mu daal di wax bismillahi rahmaani rahim ba mu waxee bismillahi rahmaani rahim rek awaluhu wa axiruhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ree tax mu ree mooy nee na waa ji bi muy lekk te waxul bismillahi rahmaani rahim seytaane dafa àndoon ak moom ci ñam wi di lekk waaye bañ demee ba ci cib bu mujj ba waa ji fàttaliku ne moom waxul bismillah daal di wax bismillahi awwaluhu wa axirahu nee na dafa gis seytaane tàmbalee wàccu di daw la nekkoon ci biiram lépp mu tàmbali ko looju di ko wàccu di daw daal di ca ndab la loolu itam gis nañ ne kon mbirum baatin la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ne ko suñu borom murilee mbir yi muy gis loo xam ne ñim toogal sax mënuñu koo gis hadis Abu Daawud moo ko nettali kon ba tey loolu li muy euh, fàttali rek mooy kuy lekk te waxoo bisimilah rahmaani rahim boo ko fàttalikoo rek gaawal wax ko gaawal wax ko. ba tey jël nañ ci Aïcha radiyallahu taala anha mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de masoon naa tiim aw ñam doon lekk ànd ak ci ay saxaabaam nee na bi ñu tàmbalee lekk rek am benn sàmm arab boo xam ne dafa daway fa rek ñëw ndab la lépp mu def ko ñaari cib ngir xiif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne ah, buñ tuddoon yàlla de bu tuddoon yàlla de kon ñam wi dana leen doy buñ tuddoon yàlla kon ñam wi dana leen doy xëy na fa xëy na booba loola daan na leen doy buñ ko daan jëfandikoo waaye sàmm araab bi ñëw rek cibb ci ndab rek te waxul bismillah rek nee na cibb ko cibb yu am doole xam naa ab sekkeen la nga xam ne ndab la ñaari cibb la ko def <laughs> yonent bi daan ne ah, li mu waxul bismillah de moo tax doyu leen moo tax suñu borom defu ci barke waaye kon dina leen doy ba tey xadis boobu tirmisi yu moo ko nettali ba tey jëlee nañ ci abi umama radiallahu taala anhu mu ne yonent bi salallahu alayhi wa de buñ daan jëfandikoo ci aw ñam ba yëkkati ñam daf daan wax ne alhamdulillahi kathiran tayiban mubarakan fihi gayra makfiyin wala muwaddain wala mustaxnan anhu rabbuna maanaam daf daan wax ne sant yàlla ñeel na sunu borom subhanahu wa tànd gu baree bare gu teey gu ànd ak dara gu àndut ak ci ñam wi nga xam ne moom la ñu xéewale ndax suñu borom moomu kat mooy koo xam ne mooy lele te kenn du ko leel te it mooy ki nga xam ne ñëpp aajowoo jëm ci moom te moom aajoowul jëm ci kenn maanaam sant yàlla rek kon képp koo xam ne jëfandikoo na aw ñam eh, na sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci jëfandikoo googee nga xam ne moom la jëfandikoo ñam wa hmm. Anas radiallahu taala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku lekk ci ba noppi wax baat yi te mooy alhamdulillahi allazi ataamani haza taama wa razaqani wa razaqanihi min xayri xawli minni wala quwa gufira lahu ma taqaddama min zanbi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne jëfandiku na ba noppi wax baat yi te mooy maa ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa xam ne moo ma wërsëgale moo ma leel ñam wii moo ma jox ñam wi wërsëgal ma ko te sama pexe wala sama kàttan mayu ma ko waaye mbaaxuk sunu borom la rek sunu borom subhaanahu wa taala mu wërsëgale ma ko kon maa ngi ko ciy sant nee na képp koo xam ne jëfandikoo na aw ñam ba noppi wax loolu nee na sunu borom subhaanahu wa taala dina ko jéggal mboolem bàkkaar yi nga xam ne moom la jiitaloon mboolem bàkkaar yi nga xam ne moom la jiitaloon kon ba tey loolu ci teggiini lekk ci la bokk ba bokk na ci teggiini lekk maanaam bañ sikkal aw ñam bañ a sikkal aw ñam yonent bi sallallahu alayhi wa daawul sikkal aw ñam buñ ko daan indil ñam woo xam ne bëgg na dafay jëfandiku bu fekkente ne bëggul nag mu bàyyi waaye daawul sikkal jël nañ ci abi hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de maa aaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam taaman xattu bu fekkente ne bëgg na ko daal dafay jëfandikoo waaye bu fekkente ne bëggul nag mu bàyyi maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sikkal aw ñam buñ ko indilee aw ñam daal bu bëggee day jëfandikoo bu bëggul nag mu bàyyi waaye dawul sikkal aw ñam bare jël nañ ci jaabir radiallahu taala anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis mas naa ñëw ci waa këram laaj leen randaay randaay mooy lu ñuy safalee aw ñam wala lu ñuy diw ci mburu ñu ne ko ah, fii dara amu fi xanaa bineegar dee fi am bineegar nag booba ñoom lañ daan tuddee bineegar mooy lu ci mel ne raisin buñ ko buñ ko nalee ba mu def ndox ndox moom xam nga day saf suukar day neex waaye nag buñ ko bàyyee ba mu yàgg bu yàggee day soppi ko xaw a weex mel ne lu jëm ci mel ne lu jëm cafka ak limon cafka ak bineegar loolu lañ daan tuddee bineegar ñoom xëy na mooy lii suñ tubaab mooy lii tubaab yi def léegi rek jël raisin di ko def bineegar bi yonente bi ñu ne ka ah, bineegar dee fi nekk mu ne indi leen ñu jox ko mu daal koy suy ca mburu ma def ko ca mburu ma mu doon jëfandikoo ba noppee daal ne ah bineegar daal amul moroom bineegar daal amul moroom <laughs> wax nañ ne bineegar moom itam amoon na amaloon na leen njariñ lool daan nañ ko daan daan nañ ko fajee ay góom daan nañ ko itam fajee koo xam ne am noppam dafa daan maanaam dafa toxoon wala ay noppam daan riir yu ci bare bare daanan ko jëfandikoo moom moom moom vinaigre boobu nga xam ne ci resin lañ ko defaree. ba tey itam bokk na ci giini ñam giini lekk mooy koo xam ne dañ laa woo ci aw ñam maanaam nga wuyu ji xam dañ laa woo ci ñam nga wuyu koo dañ laa invité ne bu dimanche wala sax ci dimanche bi ñu wala ne la bi ñëwal añ si wala ñëwal reer si bu fekkente ne wóoroo boobaa mën ngaa dem te gin la ci nga wuyu ji bu fekkente ne amoo ngànt bu fekkente ne da ngaa wóor nag <coughs> bu boobaa moom mën nga leen a ñaanal rek ne leen yàlla na yàlla defal leen barke dama jàpp koor moo tax xam naa du ma mën a ñëw bu fekkente ne wóoroo nag nga dem wuyu ji bu fekkente ne wóoroo nga dem wuyu ji am na ñuy wax sax ne bu fekkee ne da dem ci barab ñu tegal la aw ñam te fekk nga woor koor ak nga bu la neexee mën ngaa dokk waaye bu dee ci ngirum imaam Malik nag moom day mel ne loolu dañ koy bañ wallahu alam ba bokk na ci teggi ni lekk mooy koo xam ne wala teggi ni ñam koo xam ne dañ laa woo ci aw ñam te fekk nga ànd ak keneen koo xam ne wowuñu ko boo àggee na ko leeralal kala woo ca ñam wa ne ko ah, kii dafa ànd ak ñun ndax mën nañ ko ndax mën naa bokk ci ñam wala déet jëlee nañ ci abi mas'ud al badri radiallahu taala anhu mu ne dafa am benn waay bu woowoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aw ñam waxane moo ko waajaloon woo ko mook mook mook juróomi nit wala boog mook ñeenti nit muy juróom fekk booba nag am na waaju ànd ak ñoom bi ñu yegsee ba ci bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah kii de daf ñoo topp bu la neexee ma bàyyi bu la neexee nga bàyyi ko mu dugg bu la neexee itam ñu wax ko mu xaar ñu waaj na ko déedéet moom kay day daal dugg rek ànd ak yéen jëfandiku day daal dugg rek ànd ak yéen jëfandiku ci ñam mi waaye kenn du ko tere hmm. kon loolu gis nga itam maanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ woo waaye kee wowuñu ko mu ñëw ànd ak moom waaye gis nga bi mu ñëwee leeral ko ne ko ah, kii kat dafa ànd ak ñun te xëy na bokkul woon ci ñi nga woo la neexee nag mu dugg bu la neexee mu xaar waaye ñu ne ko déedéet na ñëw rek jëfandiku ci ñam bi ba tey bokk na ci te teggiini lekk muy biñ weesu woon sànq rek ko ñu wax abi am abi amrat ibn abi salama muy doomu jiit la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam neen yonte bi sallallahu alayhi wa na ko wax ne ko nanga nga lekk yow ngóor si na tudd yàlla ta nga lekk sa ndeyjoor ta lekk li nga xam ne moo te nga lekk ci li nga xam ne moo nekk ci sa wet bul dem ci kanami jàmbur yi fekk booba nee na dafa doon lekk fekk moo yonent bi ñoo bokkoon ndab waaye nee na mu jël loxoom rek fu ne mu capp cappal ko ci ndab li yonent bi ne ko yaa gulaam sammillaha taala wakul y wakul bi yaminika wakul mimma yalika tuddal yàlla da nga lekke sa loxom day joor da nga yem ci sa kanam da nga yem ci sa kanam hmm. ba tey bokk na ci teggiini lekk bañ a lekk càmmoñ maanaam di lekk càmmoñ baaxul lekk càmmoñ baaxul ñàkk teggin la ci lekk am na waaye bu doon lekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lekke loxob càmmoñam yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko waa te nga lekk sa loxo ndeyjoor bi mu ne ko mënuma ko de fekk li tax mu ne ku ko mënuma ko dafa rëy rek moo tax mu ne ko mënuma ko yonent bi ne ko ah, kon de yàlla boo ko mënati far nag yàlla nangu ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam googu nga xam ne ñoom nit yàlla yi wala yonente yi waruñu sax di kaf di wax nga xam ne ba mu waxee loolu rek suñu borom daf ko nag nga xam ne waa ji mënatu la yëkkati loxo nday jooram boobu di ko jëmee ci gémmiñam nga xam ne loxo càmmoñ rek lay jëfandikoo walhiyaas billah xadis boobu muslim moo ko nettali ba tey bokk na ci teggi ni lekk maanaam ngay lekk ànd ak nit loo xam ne dañ leen koo tegal muy doon ay doom da ci mel ne tàndarma wala raisin ak yu ni nuro maanaam ngay jël lu ëpp ñoom li ñuy jël <laughs> ngay jël lu ëpp ñoom li ñuy jël loolu dañ koy tere bokkul ci teggini lekk bu fekkente ne ña nga bokkal ndab la nag ñoom amuñu ci dara lu leen metti moom amul problème waaye bu ne nag am am na ci kenn sax koo xam ne rek li ngay def naqari na ko rek waroo koo def jëlee nañ ci jabalatam ne Suhaymi radiyallahu taala anhu mu ne ci jamonoy bekkoor ja dañoo mas a ànd ak Abdullah ibn Zubair nee na ñu wërsëgal leen woon ñu joxoon leen tàndarma ñu toogoon doon ko jëfandikoo nee na fi ñu toog di ko jëfandikoo nag Abdullah ibn Omar romb leen fekk boobu ñu ngi jëfandikoo mu ne leen ah na ngeen jëfandikoo de waaye bu leen de bu leen bu bu leen di bu leen leen di jël lu de bu leen di def ñaar ñaar wala ñett ñett ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat tere woon nañu loolu tere woon nañu loolu wala bokk koy def na ci laaj ndigal ba pare wala mu wóor ko ne ko ñim bokkal di lekk loolu méttiwu leen kon koo xam ne dañ laa tegal loo xam ne ay doom la nga ciy jëfandiku boo mënee di jël par benn moo gën boo fekkee da ngay jël par ñaar ñett nag moom lay wóor na ñi nga bokkal di lekk loolu méttiwu leen waaye bu leen méttee rek waroo koo def hadis boobu mutafaqun alayhi la ba tey jëlee nañ ci ku ñu wax Wahshi Wahshi ibn Harb radiyallahu taala anhu mu ne yonen mu ne saxaaba yi de dañoo mas a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñun daal dañuy lekk waaye duñu suur dañuy lekk waaye duñu suur yonente bi sallallahu alayhi wa ne leen xanaa yéen bu ngeen di lekk da ngeen di beru du ngeen bokk lekk ñu ne wa waaw lañu la ñuy def de ko dañu dañuy beru ah ne leen déedéet da ngeen di dajale nag seenu ñam ngeen def ko ci benn bool ngeen bokk te bale ngeen lekk ngeen wax bismillah su ngeen ko defee suñu borom dina leen wàcceel barke ci ñam yi tey dina leen doy di ngeen suur kon tudd turu yàlla ci ñam day tax yàlla wàccee barke ci ñam ba day tax itam mu regg leen hmm. hadis boobu Abu Daawud moo ko nettali hmm. bare jël nañ ci Ibnu Abbas radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na barke dafay wàcc ci digg ñam li kon kuy lekk bul jekki-jekki rek di yóotu ca digg ñam la di lekk waaye de lekk ci wet yi maanaam ndax barke bi foofu lay wàcc ci digg ñam bi lay wàcc xëy na di rogalaat di jëm ci côté yi kon booy lekk rek del rek li tàmbalee ci sa kanam jëm ca digg ba waaye bul di tàmbalee ca digg ba rek di lekk hmm. ba tey jëlee nañ ci abdullah ibnu bushrin radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa de amoon na bagaan goo xam ne alxarraa u lañ ko daan tuddee mu doonoon bagaan goo xam ne gu rëy la xam ne ñeenti nit ñoo ko daan yanu nee na nag ñu julli yor yor ba noppi nag ñooñee daal di indi ndab loolee fekk booba ña nga ca def lu ñuy wax mburu moo xam ne dañ koo dañ dañ koo dammate def ca soos maanaam mburu soos rek xëy na nee na ba nga xamee ne mbooloo ma bari nañ lool ba toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw daal di sukk ñaari bëti woomam sukkiinu ko toroxlu maanaam sukkiinu koo xam ne daal wala dong boo xam ne dafa toog ak sëriñam bank ñaari tànkam benn sàmm arab ne ko waaw luy nii nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inna allaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anidan maanaam suñu borom daf maa def kat jaam boo xam ne jaam bu tedd la waaye defuma jaam boo xam ne jaam dëng laa looloo tax bëgguma di jëfandikoo di ànd ak yéen di wane genn féete kaw gu ma leen féete kaw moo tax may ma moo tax ma sukkee nii ngir ngir toroxlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax nag ne lekk leen te ngeen tàmbalee ci seeni wet yi te ngeen te bu leen tàmbalee ci digg ba nga ne ñu tàmbalee ci lekk ci côté yi jëm ci digg ba waaye luñ tàmbalee ci digg bi ndax neena na loolu bu ngeen ko defee suñ borom subhanahu wa taala ci la leen di wàcceel barke la leen di wàcceel barke ba te jële nañ ci abi juhayfata wahb ibni abdillah radiallahu taala anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa nee na mosuma lekk mukk te fekk dama soonu maanaam lekk di soonu lekk di soonu maanaam te de genn wet ba pare di lekk loolu mooy lekk di soonu yonente bi salallahu alayhi wa nee na mosu def ak rentré kon loolu bokkul ci teggiini lekk di lekk di suunu ci teggiini lekk ba tey jël nañ anas radiallahu taala anhu mu ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaalisan muqiyan yakulu tamran maanaam mas namaa gis yonente bi sallallahu alayhi wa muy lekk tàndarma waaye booba dafa toogee ni toogee ni ku mel ne ku capp di lekk tàndarma kon bunt bi jeexul waaye dañoo toll fi ñuy yëkkatee jataay bi di leen jox dig daje ci beneen altine incha allah ba tey ñi ngi ci buntub teggiini lekk ak tudd yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci booy lekk jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah